asalaamaaleykum yéen Sénégal yi nekk Émirats arabes unis man la seen mbokk Mademba Yade fii ci Dubaï son excellence Ibrahima Soli Salaam mi ngi masawu coono dinañ wax ci tey jii moom Émirats arabes unis dañoo yeewoo ci benn tiis tiis bu mette méttee méttee méttee waaw ah, ndax suñu benn mbokk sunu xarit bu ñuy wax euh, Babacar Diouf nga xam moom moo doon PDG Alcarawan kargo moo noppalu léegi ci hôpital bi ñuy wax Dubaï Hospital depuis fukki fan nag mi ngi fii dañ ko opéré woon. depuis boobu ba léegi muy nelaw ci nelaw yooyu ci la ko yàlla moomee waaw Babacar Diouf nag nekkoon na nit koo xam ni Alkarawaan Cargo nekkoon na nit koo xam ni vraiment wax jépp benn la ku tabele woon ku bari njariñ la ku bari jàmm la waaw bari jàmm la yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu ngi koy jaal son excellence Ibrahima Sory Silla mi ngi koy jaal toute la communauté sénégalaise surtout mbokkam yi xaritam yi fi nekk di ko jaal euh, waa Sénégal surtout waa kawlak nga xam ne foofu la fekk baax di ko jaal waa Afrique yëpp ndax euh, Babacar nekkoon na koo xam ni defe naa ni il était d'une dimension boo xam ni euh, non seulement continentale mais mondiale waaw yàlla mi am njéggal yàlla na ko yàlla jéggal incha allah ñu ngi fii ci Dubai hospital ak euh, mbokkam yëpp décidé gu dara nag xam naa ni ci ci corps bi waaye lépp lu ci mbokk yi lu ci famille am décidé rek incha nañ ko gaaral toute la communauté sénégalaise incha allah donc son excellence Ibrahima Soudi Salam mi ngi jaal ñëpp. Euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal famille yàlla na leen dëddoo jàmm di ñaanal ay soxnaam ak doom incha allah yàlla na leen yàlla eh, yàlla na leen yàlla yàlla na ko yàlla wuutu si ay doomam ak famille am incha allah man la woon seen mbokk donc ma Mademba Yade fii ci Dubaï asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu